إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العظيم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 والجامع الصحيح وأمير المؤمنين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري عليه رحمة ورضوان الباري جسن جتاي بي ويسو جسن ننت باب التجارة في البر وقوله رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله بنت بيها خمنا ما وقت والو يخانتو تي جيري جي ak wax di borom subhaanahu wa ta'ala wax ne rijaalun ay góor yoo xam ne day ñoom laa tulhiihim du leen yitteeloo tijaratun ak yaxantu wala bay am du caageen njaay an zikrillahi ci tuddu yàlla ñu gisoon ne waxu imam Qataada bi rahimahullahu ta'ala mu naan kaana al qawmu يتبايعون ويتجرون ولكنهم إذا نابهم حق من حقوق الله لم تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله حتى يؤدوه إلى الله ويخوه إمام Qataada برحمه الله تعالى من ne nit ñi day ñoom de dañoo nekkoon ñoo xamante ne dañ daan jaayante naka noonu dañ daan yaxantu waaye nag su fekkente dafa am ak ci ak bur yàlla subhanahu wa taala bo xamantene dafa ñëw daf leen a wuutu boba lool du leen yaxantu bobu du leen yittelo naka noonu du yaxantu woowu du caageen ak njaay du leen yittewoo wëllif tudd yàlla mbete ñu jooxi ko jox ko borom subhaanahu wa taala gisoon nañ ci xadis sayidna al-Barra ibn Aazib ak sayidna Zayd ibn Arqam radiyallahu taala anhum nga xamante ne Abul Minhaal rahimahullahu taala moom nee na daf leen a laaj ani sarfi maanaam ci yaxant maanaam njaay jënd boo xamante ne ci wàllu Euh, sarf la aju ndax nee na moom ci boppam kuréelu at tajaru fi sarfi nee dama daal jaayeen jaay maanaam daal commerce ci li nga xam ne moom moo aju ci wàllu sarf euh, moom mooy njaay euh, wurus ak xaalis benn ci moroom maanaam benn ci moroomam wala ñoom ñaar ñëpp ci waxu jumhur comme niñ ko gisee woon rahmatullahi alal jamii gisoon nañ yi nga xamante ne moom la wuute yooyu moom la mbir yooyu mën a am gisoon nañ ko gisoon nañu tamit ne loolu du euh, li li nga xamante ne moom la euh, euh, sarf boobu di mën a tekki ak wuute yi ci borom xam-xam yi am rahmatullahi alayhim ci lan moom mooy sarf loolu gisoon nañ waaye dinañ ci gën a ñëw insha allahu taala ci fi nga xamante ne loolu rek maanaam moom lañ ciy toppatoo maanaam maanaa boobu wala masala yi aju ci wàllu googu moom lañ buntu yi wax mu daal wax ne bimu ko laajee ñu ne ko kun ñoom ñu ne ko kunna taajiriina ala ahdi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fa sa'alna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam an as-sarf fa qaala in kaana yadan bi yadin fala ba'sa wa in kaana nasa'an fala yaslah mu ne ñun de dañ daan yaxatu dañ daan commerce ci jamono yenente bi sallallahu alayhi wa sallam waaye bi ñu laaj ko yeneen bi alayhi salaatu wassalaam ci li aju ci wàllu sarf moom mu ne su fekkente ne loxo ak loxo balaa day loolu aayul waaye su fekkente ne nag mbir mi dañ koy yéexee boobaa loolu du baax du sell du yiw du sell naka noonu gisoon nañ ci baabul xuruuj fi tijaara wa qawlillahi ta'ala fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah fantashiru fi borom subhaanahu wa maanaam buntu bi nga xam ne mooy wax ci wàllu génn jëm maanaam génn dem di jaay ji maanaam di commerce bi di yaxantu ji wa taala wax ne na ngeen tasaaroo ci kaw suuf si te ngeen sàkk ngëneelu buur yàlla subhaanahu wa taala ñu gisoon ci xadis sayidna abu musa al ashari taala anhu bi nga ne ci la laajoon ndigal sayidna omar radiyallahu anhu waaye sayidna omar wax ko woon mu dugg ngir soxla waaye bi nga xamante ne ci la ñëw ci la ci la ko laaj ba mu ñëw euh, ne masala boobu daf koo rëcc ne bu boo yëgloo ñetti yoon da war a dellu maanaam waroo di insister maanaam comme ni ko ñenn ñi def nga xam ne dañuy sone euh, après ñu sonewaat ñu sonewaat après ñuy sonewaat sonewaat maanaam déedéet bu dee ñetti yoon rek na maanaam boo yëgloo ñetti yoon ubbi luñ la waxuñu la nga ñëw nga dagaay da ngay da ngay da ngay bàyyi noonu nga dellu loolu nag bi nga xamante ne moom la ko wax léegi nag. Ah, moom Seydina Omar radiyallahu anhu xamul woon masala boobu waaye bi mu ne ko nag ah waaw yow li lu tax nga def lii mu ne ko ah ñun de hakaza nu'mar nii lañ ñu ko digale maanaam noonu la ko yenente bi sallallahu alayhi wa sallam jangale mu ne ko nag ah kon nag duma la bàyyi lu dul xanaa nga indi ah, ah, nga indi dalil maanaam nga indi lu ay firnde yu leer ci ne li nga wax nii dëgg la parce que da nga ne yeneen da nga ne lii yenente bi sallallahu alayhi wa sallam moo ñu ko jàngal boo ko ko waxee nag Ah, bi ñu demee ci euh, euh, ansaari radiyallahu anhum ngir wut ci ay wut ci ay firnde sayyidna euh, maam waa lansaar radiyallahu anhum dañ ñu ko ñun duñ la lu dul ki gën a tuuti ci ñun ñu yónni sayyidna abu sa'id al-khudri radiyallahu anhu moom mu ñëw daal di koy wax lool mu ne ko ah waaw lii moom mu ne axafiya hada alayya min amri rasulillah sallallahu alayhi wa sallam ndax lii ci ndigalu yenente bi sallallahu alayhi wa ci sunna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam gën a ma rëcc mu ne waaye ah alhaani safqu bil aswaaqi mu ne yaani ila tijaara maanaam ah waaye rek maanaam euh, di dem ci marché yi rek mooma mooma maanaam di dem di jaay maanaam di commerce ji rek maanaam di dem di commerce ji rek ah, di dem ci foire moom moo muy soxlaa loolu moo euh, ah, di ma rëcc léegi nag war a gis baabu tijaarati fil baxri maanaam baabu buntu tijaarati yaxantu fil baxri ci jéeri ji muy wax kon imam al Buxaari rahimahullahu ala bi wax ci beneen ginnaaw bi nga xamante ne wax na kon ci jéer ci ci ci ci yaxantu euh, ci jéer ci géej ci jéeri ji wax na génn na di dem maanaam di dem ci yeneen ci ay foire wala boog ci ay marché di jaay ji wala boog di dem ci yeneen i dëkk yoo xamante ne xëy na am commerce daf fay gën a dox ak yu mel noonu loolu mu ci wax ginnaaw bi nga xamante ne ci la wax lool nag mu daal di wax nag léegi li nga xam ne moom mooy ne ndekete euh, yaxantu ajuwul rek ci géej gi moom du ci jéeri ji rek lañ ko la lañ ko war a def wala lañ ko mën a def mën naa nekk tamit ci géej gi mu ne wa qaala matar muy euh, matarun alwarraq euh, rahimahullahu taala nekk koo xamante ne imam muslim rahimahullahu taala soloo na ci moom xadis waaye imam al Bukhari rahimahullahu taala fii rek la indi wax ab xadisam euh, am xataa ba ci xadis bi nga xam ne moom mooy xadis bu njëkk ci bu saxeexu imam muslim rahimahullahu taala mataranul warraq bi moom moo ko moo ko solo euh, mu ne laa ba'sa bi moom nee na daal lool dara aayu ci maanaam aayul muy dem di ji ci ji gi di dem di def ci ay commerce waaye mu ne wama zakarahu wama wama wama zakarahu tudd ko wama zakarahu tudd ko allah bur yàlla fil qur'aan ci alqur'aan illaa lulul bi haqqin ci a ah, ci ci ci ci ci lu yelloo ci ñu war koo tudd maanaam ne borom bi subhaanahu wa taala dafa tudd ah, ci alqur'aan géej gi maanaam di wax ci géej gi di wax xéewal yi ci borom bi subhaanahu wa taala def mu nekk loo xamante ne kon daf koo daf koy wax ngir ñaax nit ñi di leen wan ni xéewal bu rëy la leen defal waye kon loolu mo su fekkente ne borom bi subhanahu wa taala daf koy tuddu lool day wone ni deug deug lu mata lu maam lu am solo la te it day wone ne kon ak xewal da ne summa tala top mu daal jang ay bi manam maanaam biir lo comme ni salaf yi saalih doon def radiyallahu taala anhum da xamantene ne buñ joxe ak àtte tamit dañuy wax ne bi re yenent bi sallallahu alayhi wa sallam ko wala bok mi ngi ci alquran ñu daal jang ay bi nga xamantene ci lañ lo mu ne comme ni alquran wax na wataral fulka mawaaxira fiihi walitabtahu min fadlihi maanaam wataraate yaa ngi gis al fulka muy ji ji ji ji gaal yi wataral fulka mu ne kon yaa ngi gis gaal yi ñu nekk ñoo xamante ne dañuy daw mu ne mawaaxira ñu yuuxu maanaam bu ngelaw li di di buy xotti maanaam géej gi buy xot gaal gi buy xotti géej gi géej gi maanaam gaal gu fatti gog muy muy euh bruit bobu muy def ak ngelaw li loolu mom mo tuddu mom mom lay wax noonu mom lay wax moy mooy moy tamakhur mom lay wax nan ma waaxira fii ci géej gi wari tab taxu bu ko defé nak ngeen bi sa min fadlihi ci ngeerum mu ne kon wala allakum tashkurun su ko defé tam ngeen ngeerum yàlla sant ko borom subhanahu wa ta'ala léegi imam al Bukhari rahimahullahu ta'ala bi firi lool mu ne wal fulku gal bi moy wa asfunu moom mooy muy rek maanaam moom mooy gaal yi rek mooy bato yu mag yi mu ne euh, alwaaxidu euh, benn bi nag wal jamu ak mbooloo sawa sawaa um ñoo yem maanaam al fulku géej maanaam benn bato fulku dañ koy wax fulku waaye bato yu bari dañ koy wax fulku maanaam loolu lay wax euh, benn bi ak mbooloo mi ñoom ñoo yem mu ne waqaala mujaahid mujaahid mooy mooy al imam rahimahullahu taala muy wax wax ji te imam at-Tabari indi tamit rahimahullah ci tafsiram wax ji nga xamne mom lay wax mune ne tamxaru sufunu ar-riha manam moy ne gal yi day xoti ngelaw li wala day yëngal day day def ngelaw li mune ne wala tamxuru riha min as-sufuni illa al-fulkul idam wala tamxuru manam du xot wala tamxaru du xoti manam xoti go xamne day def ak day def ak bruit manam moy ar-riha ngelaw li min as-sufuni ci gal yi illaa lu dul alfulk gaal yi nga xam ne mooy bateau yi al-izam yu mag yi maanaam gaal yu mag yi bateau yu mag yi yooyu lay def te yooyu ñaar mooy yi nga xamante ne ñaare day def maanaam day transporter ay marchandises maanaam ndax benn gaal euh, bu ndaw nii gaal yu ndaw yi duñ transporter marchandises maanaam gaal yi nga xamante ne ñoom ñooy dem di transporter ay marchandises bi ñu yëngatu ba xattaa suñ jamono jii ñu nekk sax lépp lu aju ci wàllu ay import export yooyu lu ci bëree bëree bëri ci gaal yi lay jaare maanaam kon commerce boobu noonu ci géej gi maanaam moom lay jaare euh, moom lay euh, imam al-Bukhari euh, rahimahullahu taala di wax nii kon lii moom mooy li nga xamante ne moom la indi maanaam ngir tegtaloo ko ngir wane ni loolu déjà bu ñëwee ci alquran alquran lu bari bari ci ay aaya du aaya bi kese waaye bari na ay aaya yoo xamante ne day wax maanaam ni mu tàggatee gaal yi ni mu tàggatee géej gi ak jéeri ji ak maanaam loolu yëpp mu nekk ay kéemtaan ak ay jumtuwaay borom bi subhaanahu wa taala yu mu teg ci suñu loxo mu ne qaala bi isnaad muttasil fi awwal kitaab lay wa qaala lays mu ne imaam al-lays mu ibnu sa'd bi son nañ ko rahimahullahu taala mu ne qaala haddathani rabi'a muy raxa muy muy jaafar ibn rabi'a ma haddathani jaafar ibn rabi'a muy jaafar ibn rabi'a ibn sharahbil ibn hasan al-kindi rahimahullahu taala mu muy abu sharahbil gen manam bok ci juromelu tabaqa bi rahimahullahu taala nekkon tamit wa misra alxaafis ibn xajar rahimahullahu taala ci takrib taqribu tahdib mu boole ko ci siqaat yi ak ñeneen muna an abdurrahman ibn hurmuz muy abdurrahman ibn hurmuz ibn kaysan mu gëna ci wé ci al manam bari wul luñ koy solo ba pare diko tuddé abdurrahman ibn hurmuz diko indi pouram ni waye mom moy al aaraj maanaam euh, li tax ñu ko doon wax nag al aaraj mooy dafa lagge woon moo tax ñu naan ko lagge gi mooy kon moom mooy kon al aarak euh, abu dawud mooy dàqantam wala boog abu xaazim wala abu muhammadul madani rahimahullah mu bokk ci ñetteelu tabaqa bi génn àdduna 117e année ginnaaw gàddaay yonent bi alayhi salaatu wassalaam dina bokk ci imaam yu mag ci waa madina yi rahimahullahu ta'ala maanaam euh, mu nekk kon koo xamante ne da bëri na lu mu abu hurayra d'ailleurs bokk na sax ci li ñu wax ne moom mooy bokk na ci asaxul asaaniid yi moom mooy bu imam Malik jëlee ci Abu Zinaad mu jëlee ci al-A'raj mu jëlee ci Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhum loolu bokk na ci càllal yi gën a dëgër ci yi nga xam te ne ñoom ñoo xam rawatina yu waa Madinatul Munawwara yi a saakiniha balu salaatu wassalaam moom tamit xadisam mu ngi ci kutubu sitta an Abi Hurayrata radiyallahu ta'ala anhu an rasul muy sahaaba yenente bi alayhi salaatu wassalaam an mu jële ci ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kon ñu gis ne imam Lays moom waa Madina la waa waa waa waa waa Misra la Jaafar ibn Rabi'a nekk waa Misra waaye moom mu jëlee ci euh, waa Madina maanaam kon ñi ci kaw waa Misra lañ euh, ñi ci euh, suuf nekk waa Madina waaye dina gis dinañ gis beneen waa Misra insha allahu taala lii tamit beneen mbir la boo xamante ne bu ñuy bàyyi xel la insha allahu taala ci doxalin la wo xamne imam al-Bukhari daf ko doxale ci hadith bi manam hadith bi nekul nekul mu'allaq manam waxul wa qala laysu daal dedet dafa am lu dinañ ko gis legi insha allah taala muné ko nan rasulullah mu jël ci ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam annahu nakat mom kat yi do zakara dafa tuddu rajulan ben way min bani israila ci waa banu israila bo xamantene ne xaraja génnoon na ilal bahri ci jiri ji ci géej gi faqada xaajatahu mu daal di fajoon ajoom wa al xadis mu daal di mat li nga xamante ne moom mooy xadis bi maanaam xadis bi gisoon nañ ko ci kitaabu zakat moom mooy euh, waa ji nga xamante ne mooy bi muy wax naan euh, euh, lu nekk ci géej ci géej ci géej gi maanaam nan génn ndax dañ ko génne azaka mooy bi muy wax waa ji jëloon bant bi teg ko voilà dugal ci alal jàmbur ji maanaam bàyyi ko mu jàll ci géej gi maanaam loolu kooku noonu ah, xadis boobu insha allahu taala imam al Bukhari eh, rahimahullahu taala eh, dana ko indiwaat moom ak eh, naka noonu mu ne qaala te xadis la bu imam al Bukhari rahimahullahu taala indi dana ko indiwaat te maanaam ñaari mooy ñetti yoon rek na ko indi te dafa bokk ci imam xadis yi imam al Bukhari wéetoo rahimahullahu taala mu ne xaddatani abdullah ibnu saleh abdullah ibnu saleh ibnu muhammad ibnu muslim al juhani rahimahullahu ta'ala moom maanaam da nga gis ne moom sëriñu imam al-Bukhari la kii mooy sëriñu imam al-Bukhari maanaam moom moo jëlee ci imam al-Layth ibn Sa'd waaye imam al-Bukhari gisul al-Layth ibn Sa'd rahimahullah maanaam kon ci kaw loolu càllale gi maanaam day nekk loo xam ne dafa jokkaloo riwaay mu ne Abu Salih mu ne ka mu te moom moo daan bindal imam al-Layth rahimahullahu ta'ala moom ci fukkeelu tabaqa bi la bokk gane àdduna 137e année génn àdduna 222e année ginnaaw euh, gàddaay yenente bi alayhi salaatu euh, wassalaam euh, Abdullah ibn Salih nag imam al-Bukhari rahimahullahu taala fii la ko indi mu nekk càllale boo xamante ne musnadal la benn yoon bii la ko indi dina ko indi waat xadis numéro 2063 waaye boobu ci mutaabaat lay doon insha allah taala mais moom moom moo ko indi naka noonu imam Abu Dawuda ak imam at-Tirmidhi ak imam Ibn Maaja ñoom dañoo so ñoom sol indi nañ ay xadisam waaye dañoo soloo ci ku soloo ci moom maanaam imam al-Bukhari rek moom moo indi xadisam ba pare mu nekk sëriñam directement te ci ñaari place yi nga xam ne moom la ñu tudd rek la indi amma ziyaada bi nga xamante ne moom fi am Abu Zar al-Harawi ak Abul Waqt al-Harawi ñoom ñaar rek ñoom ñooy ñi nga xam ne ñoom ñoo ko soloo maanaam Sahih al-Bukhari mooy partie bi nga xam ne moom la indi ne haddathani Abdu Abdullah ibn Salih qaala haddathani Lays bi hada mu ne imaam al-Lays moo ñu nettali lii lu mel nii nag mën naa nekk ci xadis maanaam mooy càllale bi maanaam nga indi benn partie wu maanaam nga mel ni ku ko mu àllaq ba pare dooga indi càllale gi yëpp su la neexee nga doxale ko noonu nga ne Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nang nee na ba pare daal di wax xadis ba pare daal ne haddathana nangam nangam eh, qaala haddathana ba mu yegg da ci saxaabu daal bi hada hmm. loolu bu la neexee nga waxee ko noonu maanaam loolu nag imaam eh, kii Ibn Hibbaan moo gën a bëri lu mu koy def hmm. voilà moom moo gën a bëri lu mu koy def eh, rahimahullahu taala waaye loolu mën naa nekk xadis moo xam da nga koo daggee fenn comme nii ko imaam al-Bukhari defee ci imaam Lays rahimahullah wala boog da nga koo daggee ci yeneen bi ci boppam ah. sallallahu alayhi wa sallam dooga indiwaat xadis bi maanaam loolu yëpp mën naa nekk kon niñ ko gisee dafa waa imam al-Bukhari yi dafa bokk ci xadis yi nga xam ne daf ko wéetoon gisoon nañ ko biñ nekkee ci kitaabu zakat euh, dégg nga wallahu aalam xadis euh, bi ci euh, ima léegi kon mu ne baabun wa idha ra'aw tijaratan aw lahwan infaddu ilayha wa qawluhu jalla dhikruhu rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillah maanaam euh, fii nii mu mel ni dafa xeet maanaam xeetu ak baamu daf ci am ci ni nga xamante ne noonu la nekk lool moom moo tax mu am euh, ni euh, mu ñëw baamu woon nii ci riwaaya ku mel ni al imam al mustamli rahimahullahu taala ak ku mel ni imam an nasafi waaye ñeneen ñi nga xamante ne ñoom ñoo ko indi ñoom lu bari ci ñoom ñu ëpp ci ñoom baamuwul waaye imam an nasafi imam as-saani imam Euh, maanaam al mustamli euh, ñoom ñi nga xam ne ñu solo euh, xadis bi lañ ñoom ñoom maanaam ñu solo sax al Bukhari ñoom ñi dafa ñëw ñu baamu ci ñoom comme ni nga xam ne noonu la ko surraax di leerale ñu mel ni ñoom al-Hafiz Ibn Hajar ak imam Badruddin al-Ayni ak ñeneen rahimallahu al-jami' waaye li nga xamante ne moom mooy ne amaan na ne imam al Bukhari rahimahullahu taala dafa indiwaat euh, xadis bi ba pare indiwaat wax yi nga xam ne moom la imam Qatada wax rahimahullahu taala mu répété waat ko ken ni effectivement moom imaamul Buxaari moo ko répété waaye lu nekk dafa am lu taxoon maanaam mu daal di koy indi bu fekkente ne bu njëkk bi maanaam daf koo indi woon ngir wax ne euh, ñooñu maanaam pour moytandiku maanaam euh, ne nit ñi ma jaamu yàlla mbir yi bañ laa xañ bañ laa xañ jaamu yàlla bi maanaam nga bañ nekk koo xamante Euh, man daal euh, njaay ak jënd bi moom wala boog euh, sama liggéey daal moom moom moom nga daal koy jiital ci kaw julli gi wala jaamu yàlla gi maanaam loolu moom moo taxoon mu njëkkoon ko indi te da ngay gis ne ñaari aaya yëpp daf ko wutaloon benn bu ci nekk buntam ngir leeral lu mel noonu al beneen bi ci des moom mooy ne indiwaatoon na ko tamit ngir wane daganu njaay kese léegi fii tam nag mu daal koy indi tamit di wane maanaam nit ki effort bi mu ci war a def maanaam ci yittewoo euh, euh, wàllu li muy wut maanaam mu jiital maanaam mu bañ a euh, xeex maanaam ginnaaw ba mu xeexee lu koy xañ digganteem ak boroomam subhaanahu wa taala mu yittewoo tamit ne buy wutit day wut lu sell loo xam ne dana dëppoog li borom bi bëgg maanaam mu nekk kon ñaari mbir yu tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi hadith indi indi waat aaya yi ngir ne benn bu ci nekk da koo bennoon ci eh, ci benn buntu bu ne lii nag mu ñëwaat baabuwaat ko ngir wax la jàngat yu bari yi ci mën a ne rahimahullahu taala mu ne wa iza aw baabul bunte ngi ni boo xam ne day wax ne wa iza aw suñu eh, gisee ñoom gaaye maanaam ci jaaratan ak yaxantu aw wala boog lax wan ak mboosóor maanaam ay caaxaan kon comme te caaxaan yooyu moo nekkoon instruments musicaux yi ñu ci daan boole ndax comme ni ñu daan yëgle maanaam ñoom bu ñu daan eh, yëgle ne marchandise mi ngi yegg si Euh, benn caravane njëgg yegsi na yor na ay marchandises si bari dañ ko daan boole ay mbiib ay di tëgg xeet yooyu noonu nga xam ne moom lañ ko daan booleel ngir yëg ne affaire baa ngi yegsi maanaam loolu nag moom la borom bi subhaanahu wa ta'aala tuddee mooy ay caaxaan maanaam te ku nekk xam na ni li alquran wax fa maza ba'da al-haqq illa ad-dalal comme li imam euh, Malik rahimahullahu ta'ala ñu laaj ko ndax musique baax na wala dagan na wala xaraam na mu ne yow boo koy boole ci mbir yi am fulla yi yu dëggu yi yooyu nga koy boole wala ci wala feneen fan nga koy boole mu ne ah non vraiment duñ ko mën a boole nag ci am fulla yi nga xam ne moom affaire dëgg dëgg la dëgg dëgg moom non déedéet duñ ko mën a boole foofu mu daal leen ci tegal ne fa maza ba'dal haqqi illa dalal comme ni nga xam ne noonu la ko alquran waxee lan moo nekk ginnaaw dëgg loolu ay caaxaan ak sànku rek dégg nga kon loolu moom mooy la xam ne mu ne bi nga xamante ne kon ci la ñu euh, bu ñu déggee im faddu ilayha ñu daal di daw daal di maam dem ca dégg nga mu ne wax qawlu ak wax ji nga xam ne moom la borom bi subhaanahu wa moom nga xam ne jalla màgg na màggaay yu ëpp xelu mindee fi zikruhu ak tuddam borom bi subhaanahu wa taala nee na ay góor yoo xamante ne gisoon nañ aaya bi ci suñ jotaay bi weesu ah rijaalun ay góor maanaam ñoo nekk ci jumaa ji ak jàkka yi waaye ñooñu ay góor lañ dëgg-dëgg ñooñu ñoom de laakul yi ñun du leen yi soxlaaloo du leen yitteloo du leen sàgganeloo sàgganloo sàgganeloo tijaaratul ak yaxantu wala bayun du caageen jaay am zikrillahi wala tudd yàlla maanaam tijaara mooy yaxantu euh, bay mooy njaay maanaam ñoom ñaar nag euh, am nañ tuuti bu maanaam mooy ne dañoo mel ni benn la waaye ba tey du benn ndax tija euh, bay moom mooy njaay bi mooy vente maanaam dama dama laa jaay voilà loolu mooy lu lu lu ponctuel la maanaam lu mën a nekk la mais loo xam te ne tey jii la ne alors que tijaara mooy yaxantu mooy commerce bi ne diw commerçant la bokkut ak diw vendeur la parce que vendeur moom mooy ne yor na lu muy jaay jaay na ko mais commerçant mooy liggéeyam la maanaam kon loolu ñaar yooyu maanaam moom mooy li nga xam ne moom moo wuute li euh, nga xam ne moom mooy euh, bayoo kon noo tax bayoo euh, mën na nekk vente maanaam mais mën na nekk tamit interaction commerciale def interaction rek waa alors que commerce ci bopp maanaam loolu lu gën a durable la voilà lu gën a durable la moo gën a yàgg mu ne kon nag euh, ñooñu kon seen moo xam occasion bu teew la nga xamante ne benn occasion kese lañ am ngir mën a am alal jii nii loolu du sax tax maanaam duñ ne tey masalan ah comme lii benn yoon la rek naa sacrifier sama julli jumaa ji wala lii ko benn yoon la naa sacrifier sama jaamu yàlla bi déedéet duñ wax loolu wala du caageen nag loo xam ne dans la durée la maanaam ne liggéey la boo xam ne da ngay xëy tous les di ko def bi ci am astuur loolu tamit du leen tax ñu sacrifier seen jaamu yàlla maanaam loolu lay wax ñooñu ñu tuddee ay góor bare góor gi voilà dégg nga euh, kon mu ne wa qaala Qataada mooy imam Qataada rahimahullahu taala mu ne kaana nekkoon na al qawmu nit ñi ñoom a daan nañ yaxantu moo tax te daan nañ yaxantu mooy daan nañ nekk ay commerçant lañu woon mu ne walaakin nahum waaye ñoom kaanu nekkoon nañ ñoo xam ne iza naabahum su leen daan wuutu mooy euh, naaba boo naan maanaam bi naan na par exemple nawaa ibu zaman mooy problème yu bari yi nekk ci adduna bi quoi loolu mooy na na na naaba mooy loolu lay teg mooy ne bu amee ko dara loo xamante ne xàqul àq la min xuquqillaa ci àq buur yàlla yi yoo xam ne ñëw dafa yegg si dal rek rek nee na lamtul yi him du leen soxlaaloo du leen yitteloo du leen sàgganeloo tijaaratoon yaxantoo wala bay am du caageen njaayam an zikrillahi ci ñu tudd yàlla di fàttaliku yàlla ba dem xattaa mbéte yu adduwu ñu jooxe ko ilallah ca buur yàlla subhaanahu wa taala ba ñu def dëgg dëgg li yàlla bëgg ci ñoom ñu doog a ci neneen mu ne qaala bil isnaadil muttasil fi wal kitaabi lay haddasanaa euh, Muhammad muy ibnu Salaam al Bikandi gisoon nañ ko mu ne qaala Euh, Muhammad ibn euh, Fudayl te moom mooy Abu Abdurrahman moom it gisoon nañ ko mu ne an euh, Husayn mooy Husayn ibn Abul Huzayl as-Sulami nekk waa Kufa rahimahullahu ta'ala gane àdduna 43e année génn àdduna 136e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mi tamit nekk ci kutubu sitta Euh, te moom mooy jëmmi ah, ah, maanaam fee euh, boo xoolee càllale gi jële weesu ah, euh, daf ko jële woon ci Talq ibn Ghannaam mu jële ko ci Zaa'ida fii mu jële ko eh, eh, ci Muhammad ibn Salaam al-Bikandi mu jële ko ci Muhammad ibn Fudayl moom mu jële ko ci Husayn maanaam ngi gis ne kon Husayn ci lañ jële càllale gi te loolu tamit bokk na ci limuy muy dëgëral mooy ne buntu bii buntu bu ñu nose la maanaam weneen la bu bees bu imam al-Bukhari nose ngir ne xadis eh, bi da ngay gis ne daf koo maanaam musnad daf koo ca daf koo càllale càllale gi da koo indi mu nekk beneen càllale bu wuute mu ne kon eh, an Salim ibn Abdul Ja'd moom gisoon nañ ko an Jaabir sayyidina Jaabir ibn Abdullah ibn Haram radiyallahu anhuma tamit gisoon nañ ko annahu qaala nee na aqbaltu dama ayron ak dëgg wa nahnu fekk ñun nusalli ñu doon julli ma annabi ànd ak yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam aljumaata julli aljuma fan fadda naasu fan fadda mu daal di màmm daal di daal di daw an naasu nit ñi ñoom ñëpp ñu dem ñuy rocceeku génn dem illaa ba mu des isnay ashara fukk ak ñaar rajulan ay góor maanaam fukk ak ñaar nit rek ñu di des fa nazarat mu daal di wàcc haazihil aaya bi aaya mooy ne wa idha ra'aw tijaratan aw lahwan faddu ilayha wa tarakuka qaa'ima mu ne ñoom de bu ñu gisee zaaraw bu ñu gisee tijaaratan ak yaxantu aw lahwan wala boog ay mboosoon ay caaxaan mm, faddu danañu rocceeku ñoom ñëpp mam ilayha jëm ca wa tarakuka te ñu bàyyi la qaa'ima ngay eh, eh, ngay taxaw maanaam in fadda ah, da ngay gis ne moom maanaam moom ci faaba faaba maanaam in fadda mooy ne nit koo xamante ne xam nga afaaba mooy dafa dem in fadda nag mooy mooy day dooteeku maanaam ni muy rocceekoo day ànd ak doole ba pare day dooteeku maam day day day jóge ci kaw di daanu maanaam kuy mam maanaam xeet yooyu loolu maanaam ngir gaaw gi nga xamante ne moom la ñuy gaaw ak xër giñ ciy xër maanaam muy maanaam gaawaay gi ñuy gaaw dem ak xër giñ xër ci mën a dem di wuti ci loola waaye loolu yëpp borom subhaanahu wa ta'aala gaay qul ma inda allahi xayrun a allahi wa min at-tijaara wallahu xayru raaziqiin qul waxal ne ma inda na la fa buur yàlla xayrun moo gën moo gën de minal wi ci mboosóor yi wa minat tijaarati ak caaxaan yi wallahu buur yàlla xayrul raziqina moo daa ko wërsëgalaat maanaam boo bàyyee muy muy bégal nit ñi ne leen boo leen bàyyee dara ngir man man dinaa leen ubbil buntu yoo xamante ne du dëju maa lay wërsëgalal loolu nag ci bëti nit ñi nii ci zahir mën naa nekk loo xamante ne luñ dul xaar la maanaam naka noonu tamit luñ dul yaakaar la waaye noonu lay demee te comme li borom subhaanahu wa bi mu ne wa maa xalaqtul jinna wal insa illa liya'budun daf koy teg ne maa uridu minhum min rizqin wa maa uridu an yut'imun inna allah huwa ar-razzaqu dhul quwwatil matin bindu jinne ak doomu aadama lu dul ngir ñu jaamu ma borom subhaanahu wa taala da man nammuma ci ñoom wërsëg te nammuma ci ñoom ñu may dundal laajuma leen ñu jox ma dara laajuma leen ñu dema dundal man yàlla maanaam mooy soxlaalu ma leen dara ñoom seen jaamu gi ñu may jaamu ñoom la nekk seen njariñ du man la ne sama jariñ de voilà parce que aussi mel ni kuy rendre service yàlla du loolu ah maanaam yow jaamu yàlla gi yàlla digal jum la ko digal pour sa intérêt la yow voilà moo tax du ne way boo yàlla xam nga loolu c'est vrai mooy wax lii mais xam nga nañ xaar quand même parce que kii maanaam mel ni comme si après da ngay ak moom et après moom la affaire bi intérêt bi pour moom la moo tax mu ne la laaj del def lii del def déedéet li mu la tere pour yow la li mu la digal pour yow la voilà moo tax mu ne maa uridu minhum min rizq wa maa uridu an yut'imuna inna allaha naka buur yàlla huwa ar-razzaq moom ci boppam mooy kiy wërsëgalaate te moom kese la amul keneen kuy wërsëgalaate dul quwwatil matin moom mooy borom kattan gi nga xamante ne dafa dëgër tëj ba pare sax naka noonu moom ci boppam mooy ki sax te dëgg te te te ak nekkam fi dëgër këcc sa sax amul dara lu ko fi mën a jël kon euh, loolu euh, mbir la moo xamante ne bu mat a bàyyi la mooy ne ak lu mënti xew yàlla bu nee la bàyyi lii nga bàyyi ko lu mu metti metti metti tey ëllëg dana neex waaw ëllëg dana neex xadis bi imam al-Bukhari rahimahullahu taala indiwoon xadis numéro 936 comme ni ñu ko gisee woon ci kitaabul jumaa indi nako ko tamit xadis numéro 2058 lo rom nañ ko léegi léegi mu dess ben yoon rek bo xamantene war nako indi wat muy hadith numéro 4899 ci kitab tafsir tafsir suratul juma imam muslim rahimahullah taala indi hadith numéro 863 ñaar ñetti yoon imam at-Tirmidhi indi hadith numéro 3311 imam Ahmad indi na ko xadis numéro 14356 ak 14978 kon ñu gis ne xadis bi waa asxaabu kutubu sitta ñett ko ci indi muy imam al-Bukhari imam Muslim imam at-Tirmidhi amma imam Abu Dawud ak imam an-Nasa'i ak imam Ibn Maaja ñoom indi wuñu ko rahimallahu al-jami' na baabu qawlillahi ta'ala anfiqu min tayyibati ma kasabtum muy muy bor bor muy euh, euh, euh, baabu buntu buntu li nga xam ne mooy xawli wax ji buur yàlla moom wax euh, ta'ala moom mi nga xamante ne moom mooy aji wërsëg gi ne anfiqu na ngeen euh, di joxe maanaam en nafaqa comme niñ ko gise woon moom mooy euh, di jël li nga xamante ne moom mooy wërsëg gi maanaam nga di ko jaarale fi nga xamante ne moom mooy li borom subhaanahu wa ta'ala nafaqa wala anfiqu min tayyibati ma kasabtum mooy am anfaqa mooy nga jël mbir mi di ko jaarale ci canal boo xamante ne day baax voilà kon loolu loolu loolu moom lay wax ne kon nag anfiqu min tayyibati ma kasabtum euh, moom moo tax mu ne wa mimma akhrajna lakum min al ardi ak nga xam ne moom lañ leen génneel ci suuf si voilà moo tax euh, loolu moom mooy euh, aaye boobu nekk ci suratul baqara borom subhaanahu wa di ci tegtal booy gëm ñi ne leen kon nag yaa ayyuhal ladina amanu yéen ñi nga xam ne gëm ngeen te dëggu am anfiqu na ngeen di dépenser waaye doo leen jël seen alal di ko dugal fu baax waaye loola ñun ngeen di dugal nag na nekk min tayyibaati ci ci yi baax maanaam mooy yàlla soxlawul ngeen di dépenser lu sellul lu baaxul loo xamante ne daganul loolu yàlla soxlawu ko voilà bul ne bu ba amee lu baax après dinaa ci def nangam ak nangam non loolu yàlla laaju la ko li mu la laaj mooy nga wut lu baax nga dugal ko fu baax dégg nga kon loolu la yox maa kasabtum wa mimma ak ci li nga xam ne akhrajna lakum moom lañ leen génne leen minal ardi ci suuf si bu ne nag wala tayammamul xabiisa minhu tunfiquun waaye nag bu leen di jublu mukk ci li nga xamante ne mooy pepp bu bu baaxul maanaam boo amee alal lu baax mu am yeneen yoo xam xamante ne day yàqu wala yéen masalan tey ngay bëgg a saraxe wala ngay maye dugub wala ay yére wala yu mel noonu maanaam bul tànn yi nga xamante ne dañoo commencé xotteeku fur yi nañu nangam nangam mënatoo leen a sañse nga dem di ko mayee maanaam bul tànn déedéet naan waa xam nga pour humanitaire la rek déedéet demal nga wut yu baax yi nga joxe ko bu la mu ne booy bon bu dee nag léegi yow yooyu nga yor te wax dëgg yàlla gars yi xam nga ni dañ ko soxla nga jox leen ko garaawul mais xamal ni defoo gën a baax li nga def nekkul loolu lay wax ne mu ne kon nag bu leen def loolu boo leen mooy maanaam gënul soo leen dee saraxee ngeen di joxe da ngeen di joxe loo xamante ne bëgg ngeen ko yéen bu ñu leen ko doon jox day ngeen ko bëgg moo tax mu ne bu leen di jël ci yi ngeen di ko joxe walastu bi akhidhi illa an turmidu fihi te yéen bu ñu leen ko doon jox doo leen ko jël lu dul ngeen di gëmm maanaam gis nga subhanallah psychologie bi maanaam ne ngay jël dara imagine ngay jël dara di gëmm parce que tout simplement amul suwaale maanaam mu ne yéen bu leen joxe loo xamante ne ci cas de figure boobu ngi boo ci nekkee loo ngeen di def voilà mu ne waalamu na ngeen xam anna allaha naka buur yàlla ganiyun ku woomal la hamidun ku gërëmu la ku sanku la maanaam du ñu mu woomal ñëpp maanaam woomal borom bi nag subhaanahu wa dafa am le fait que moom soxlaalul dara loolu woomal moom lañ soxlaal mais am na woomal am na beneen mooy ne mooy dafa ama ama ama am ba nga xamante ne te li mu yor doyuwu ko dara waaye loolu yëpp maanaam ku am moo la waaye te mu nekk tamit koo xam ne xamidu ku ku sant la adduna bi yëpp dañuy wax kàddu cant di sant borom subhaanahu wa taala univers bi yëpp dañuy sant yàlla ci ci ci ci xéewal gi mu di xéewal ak maanaam euh, euh, euh, gis bi ñuy gis jeexitalu woomaluk yàlla am amuk yàlla maanaam gis gis bi ñuy gis jeexital bi mooy effet yi conséquences yi traces yi parce que am na ñoo xamante ne mën na noo am waaye du ma sant ndax kenn du gis conséquence su seenu am maanaam jeexitalu seenu am moom du feeñ waaye yàlla moom amam dafa feeñ ci mbindeefu mi subhaanahu ah. am na tamit eh, ñeneen ñi nga xam ne am na eh, ci surraax yi ñoo xam ne dañoo jàpp ne maanaam fii bi ñuy wax eh, baabu anfiqu min tayyibati ma kasabtum ñoom Euh, dañ koo jaawale mais euh, baabu euh, kulu min tayyibati ma razaqnakum waaye bii lii moom mooy li wér ndax kulu min tayyibati maanaam kulu min tayyibati ma kasabtum bokk lañu alors que kulu alors que anfiqu min tayyibati ma kasabtum moo am ci alquran kulu min tayyibati ma razaqnakum moo am ci alquran kon de boofu beneen aaya la boo xamante ne borom subhanahu wa ta'ala daf ne yaa ayyuhal ladina amanu yéen ñi yaa yi nga xam ne gëm ngeen dëgg kulu lekk leen moy na ngeen di consommer manam dafa tuddu lek gi mais wu ci lek yi bo ko buñ ne diw mi ngi lekk xaalisam wul ne ah lekk rek la ci def mais da ci solo da ci tabax da ci dem vacances da ci dem yeneen ak yeneen manam kon lolu moy kon kulu na ngeen ñu tay tayyibaat ci tey ñi nga xamne ne razak rasak maa li nga xam ne rasak naa ko wërsëgal nañ leen ko washkurullaha ngeen gërëm yalla manam ngeen jaam ko ci alal di ngeen lu leen dox in kuntum bu fekkente ne mom yalla kesse ta kese taabudoona ngeen di jaamu manam kon mu nek ñaari mbir yo xamantene euh yu wuute la ci euh ay euh kon li nga xamante euh lolu comme wala imam Ibn Battal rahimahullahu taala maanaam ci sarxam moom moo def jaawale googu rahimahullahu taala mu ne qaala bil isnaad al muttasil fi awwal al kitaab lay Usman ibn Abi Shayba muy mag ci Abu ibn Abi Shayba muy Usman ibn Muhammad ibn Ibrahim ibn Usman al-Absi rahimahullahu ta'ala muy Abul Hasan moom tamit bind na musnad comme musannaf comme comme rakkam waaye rakkam bi moo gën a màgg maanaam mooy Abubakar ibn Abi Shayba moom moom imam la bu siiw rahimahullahu ta'ala borom musannaf bu siiw boobu rahimahullahu ta'ala moom itam Abul Hasan waa Kufa la rahimahullah bokk fukkeelu tabaqa bi gane àdduna 156e année génn àdduna 239e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ay haditham manam nek ci Sahih imam bukhari imam Muslim imam Abu daud ak imam Ibn majah manam kon ci waa ashaabu kutubu sitta ñoom solo nek ay haditham bam dess imam at-Tirmidhi ak imam an-Nasa'i rahimahullahu jami mun qala hadathana Jarir muy ibn al Hamid ibn Jarir ad-Dabbi muy Abu Abdullah ar-Razi di waa Kufa nekkoon qaadi ba rahimahullahu ta'ala nek imam bu mag bok ci juroom ñettelu tabaqa gane aduna 110e ane génn aduna 188e ane huitieme gadda ginnaaw gàddaay bi sallallahu alayhi wa sallam ca ray mom rahimahullah ta'ala mune an mansur muy imam bu mag boobu mansur ibn al-Mu'tamir Abu Itab as-Sulami al-Kufi gisul nagn ko da melni rahimahullah ta'ala mun an abi wa wa mu an abi Wa'il muy Shaqiq ibn Salama rahimahullah ta'ala Abu Wa'il al-Asadi Ah, rahimahullah ah, di taabi'i bu mag boobu hmm. ah, mu xadram yi ci mu xadram wu nay la bokk ndax muy gane àdduna ci jamono yenente bi sallallahu alayhi wa ci at bu njëkk bi ci gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam génn àdduna quatre-vingt-deuxième année ginnaaw gàddaay yenente bi alayhi salaatu wassalaam nekk imam bu mag ci waa dëkk waa Kuufa tamit ay xadiisam nekk ci kutubu sitta an Masruuq Euh, moom tamit euh, muy Masruq ibn Ajda ma moom mii hmm. ah, kon da ngay gis ñoom ñaar ñi ay morom lañ maanaam moom ak Abu Wa'il maanaam ñoom ñaar ay morom lañ kon euh, moom it ci ñaareelu bi la bokk rahimahullahu ta'ala muy Abu Aisha al-Hamadani rahimahullahu ta'ala nekkoon tamit qaadi bu mag Kufa moom tamit rahimahullah voilà moom moo waxoon Seydina Ali ne ko xanaa da ngaa foog ne da nga ëppanteeg ñu di la teg di la àtte moom moo ko waxoon fekk Seydina Ali ñëw mama ak yahud bi bi ñu ñëwee eh, eh, mu a ñëw toog mu ah, ya Amal Hasan eh, Seydina Ali fay ko ba pare mer maanaam wan ko ni ko dafa mu ne ko yow da nga foog ne xanaa yow da ngaa ëppanteeg ñu war a taxaw teg la fii dina àtte fekk moo nekkoon xalifa bi de mu ne ko non non non du loolu man li tax moom mooy lan tax ma ñëw nga di ma beral nuyoo ah ba di di di di ma wax naan ma Amal Hasan maam di ma woowee sama kunya alors que man ak yahud bii nii ñun ñoo fi yem ñu waroon nga waroon ñu àtte ci ku nekk ci nga traitement de faveur waru mun am suñu diggante voilà looloo tax ma mel maanaam yahud bi yahud bi daal ne ah diine ji daal muy dëgg daal tuub dugg ci lislaam voilà moom moom moo ko waxoon maanaam kon <laughs> euh, moom mi ngi génn am na sa deuxième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom euh, imam bu màgg la rahimahullah an Aisha mu soloot soxna Aisha ummul mu'minina radiyallahu ta'ala anha gisoon nañ ko soxna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam annaha qaalat moom mu ne qaala nabi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na iza anfaqat bu fekkente ne dafa dugal alal maanaam dafa dépensé almar'atu jigéen ji min ta'ami ci ñamuk baytiha këram ghayru mufsidatin waaye nag ñu tënk ko ci mu bañ a yàq maanaam mooy ghayru mufsidatin mu bañ a yàq maanaam mooy day dépensé ci maanaam alal ji nga xamante ne moom la jëkkër ji indi maanaam mooy ravitaillement bi ravitaillement bi wala boog yi nga xam ne mooy course weer bi wala course semaine bi wala course at bi ak yu noonu jigéen ji ñëw daal di ciy maye wala boog mu def ay invitation dégg nga daal di ciy togg ah, yoo xamante ne sax tàgguwul jëkkër ji yëpp bu ko defee waaye fay remof si mu bañ a nekk ku yàq maanaam mu tënk ko ci loolu kaana dana nekk laxaa di ko ñeel ajruha ak payam maanaam moom dana am pay bi bi ma am faqat ci li nga xam ne moom la moom la dépensé maanaam ndaw si ci boppam day am tiyaaba ci loola hmm. wali zawjiha te dina ñeel borom këram bi maa kasaba ca la mu faam maanaam borom këram it dina am pay ci le fait que moom mu indi affaire bi walil xaasin te ñeel na tamit ki nga xam ne moom mooy euh, euh, kay kay garde mooy xaasin bi mooy kay di garde mislu zalika kemuk loora gardien bi nga xam ne tamit moom lay dem ci ci ne ko ah waaw euh, dama bëggoon fi nga xamante ne foofu lañu def saaku ceeb yi maanaam ngi jox jox ma ci euh, kilo euh, ñaangami kilo yooyu noonu kooku tamit bu ko jëlee jox maanaam loolu itam dina ci am euh, ci yàlla mu ne laa yanqusu du wàññi mukk ba'duhum leen ci ñoom baax ba'd pay ñeneen ñi ci def see am dara ku nekk dangay am pay gu mat sëkk tiyaaba gu mat sëkk ngay am voilà ci ci ci jëf di nga ci jëf jëf maanaam ci participer ñoo participer lii nag imam al-Bukhari rahimahullahu taala daf koo indi ngir wane ne wala wërsëg bi maadaama ne yow am nga ci am nga ci pouvoir mën a def ak di dindi rek ak lu mu ci mënti doon ci lu mën a doon nag nga dépensé ko ci lu baax danga ci am tiyaaba même bu dee yow yoroo pouvoir bu mat voilà comme nit koo xamante ne rek euh, dafa am euh, pouvoir mën a dimbali kenn ci ci ngir ngir ngir daraja gi mu amee rek wala boog ngir euh, ne dañ kaa dañ dañ dañ ko maanaam dañ koo masalan teg ci benn ci fenn benn place di ko def loo waye mom normalement du yorul amul ndigal amul ndogal waye mën na ci japp rek manam ci luddul ak ger nak ak ak ak ak di di yàq ak ñeneen ñi manam ci luddul lool loolu hadith bi imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi won lo hadith xadis numéro 1425 1437 1439 ak 1441 euh, comme ni ko gis woon ci kitaabu zakat ah, fofu yëpp lako imam al-Bukhari indi won Euh, fii moom mooy fi mu ko mujjee indi maanaam jeex na doot ñu ko gisati incha allah imam muslim indi na ko xadis numéro 1024 ñaari yoon imam abu dawud indi ko xadis numéro 1685 imam at-tirmidhi indi ko xadis numéro 671 ak 672 imam an-nasa'i indi na ko xadis numéro 2539 imam ibn majah indi na ko imam ahmad indi ko xadis numéro 24171 24177 24680 ak 26370 kon ñu gis ne xadis bi waa ñoom ñëpp indi nañ ko rahimallahu al-jamii' wa qaala bil-isnaad al-muttasil fi al-kitaab li haddathanii Yahya ibn Ja'far rahimahullahu ta'ala Yahya ibn Ja'far ibn Ayyun daakantaam nekkoon Abu Zakariya al Azdi al Bariqi rahimahullahu taala nekk moom it Bukhari moom ak moom al Bukhari maanaam moom sëriñ moom Bukhari ñoom ñoo bokk dëkk moom bii kandi la tamit rahimahullahu taala Euh, moom mi ngi bokk fukkeelu tabaqa bi génn àdduna 243e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam imaam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala euh, fii la dikk indi hadiisam maanaam ñoom moom ñu ngi koy doog a gis euh, moom Yahya ibn Ja'far al-Bikandi bi rahimahullah ñu ngi doog a gis hadiisam dina ko indi maanaam ci Sahih bi yëpp am na ci juróom-ñetti hadiis fii nag moom mooy fi njëkk rahimahullahu ta'ala muné qala hadathana abdur razzaq muy imam bu mas bobu imam as-San'ani razzaq ibn Hammam ibn Nafi' al-Himyari rahimahullahu ta'ala Nek. wa Yaman Nek. imam bu mag Aboubacar mooy dàqantalam Aboubacar as-San'ani al-Yamani Bok. ci juróom ñentelu tabaqa bi borom musannaf bi Manam. téré bu am solo la musannaf bu reuy la bind manam bu siw moma ñaar musannaf yëpp ñaar yoy ñu gëna siw moy mooy bu ibn Abi shaybah ak bu imam razzaq as-San'ani maanaam ñoom ñu ñoom ñoo ko indi ba nga xamante ne euh, moom mi euh, Abdur Razzaq euh, as-San'ani moom mi bu solowee jëlee ci ibnu mu jële ci Ata ibnu Abi Rabah mu jëlee ci Seydina Abdullah ibnu Abbas radiyallahu ta'ala maanaam ñoom ñi moo tax imam Ahmad doon wax naa waa Yaman dañuy wax lool waa Yaman dañ non waa Makka waa Makka dañuy wax ne ne ne Abdur Euh, moom moom moom muy muy mu nettali ne voilà moom ah Abdurrazzaq nettali ne waa Makka dañu wax ne Ibn Jurayj de moom mu ngi jàngee julli ci Ataa ibn Abi Rabah Ataa mi ngi ko jàngee ci Seydina Abdullah ibn Abbas dana Abdullah ibn Abbas mi ngi jàngee julli ci euh, Abdullah ibn Zayd euh, ak ci Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam Seydina Abu Bakar radiyallahu anhu mu jàng ko ci Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam maanaam kon ñoom ñii seen càllale googu tamit bokk na ci càllale yu mag yi rahmatullahi alayhim wa radiyallahu anhum moom nag bokk na ci tamit li nga xamante ne moom mooy lu ñu ko mën a maanaam lu ñu koy gàttal mooy xeetu tashayyu maanaam dafa am lañu yenn xalaat yoo xamante ne xalaatu cheikh yi yoo xamante ne dafa takk ci moom rahimahullahu ta'ala waaye ala kulli xaalan léeg-léeg jamono jooju daan lañ wax ne nit kii dafa am xalaatu cheikh yi fekk liñ ci jublu rek moom mooy lu bari lu muy défendre ku mel ne Seydina Ali karamallahu wajhahu surtout ci jamono jooju loolu dafa neexoon ñu tuumaal la ko loolu moom moo tax ñu daan tuumaal ci Shayba ku mel ni imam Tabari ku mel ni ak ñeneen ñu bëri imam Abdur Razzaq ak ñeneen rahmatullahi al jami' euh, kon moom mi ngi génne àdduna 126e année génn àdduna 211e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ay xadiisam nekk ci kutubu sitta an Ma'mar mooy Ma'mar ibn Rashid al-Hadawi muy imam bu mag tamit rahimahullahu ta'ala euh, Abu Urwa al-Azdi al-Hadani Euh, moom tamit ci juróom-ñaareelu tabaxa bi la bokk génne àdduna 96e année génn àdduna 150e année ginnaaw gàddaay Yonent bi alayhi salaatu wa salaam nekk imaamu waa Yaman an Hammaam mu ah Hammaam ibnu Munabbih gisoon nañ ko moom ab la woon tamit dafa tuub dugg ci lislaam waaye nekk imaam bu mag rahimahullahu ta'ala annahu qaala nee na sami'tu dégg naa Abaa Hurayrata radiyallahu anhu maanaam xadis bi moom mooy xadis càllale bi gën a dëgër waa Yaman ndax ñii waa Yaman lañ. maanaam muy euh, muy bu euh, amma euh, Abdurrazzaq as-San'ani solo ci Ma'mar ibn Rashid al-Hadani mu solo ci amma ibn Munabbih mu solo sayyidina Abu Hurayra radiyallahu anhu comme ni imam as-Suyuti wax wa ma rawa Ma'mar an Hammam an Abi Hurayra asahhu lil yaman voilà lépp loo xamante ne Hammam Hammam Ma'mar wa ma rawa Ma'mar mu jël ko an Hammam an Abi Hurayra asahhu lil yaman mooy càllale bi gën a wér bu fekkente ne càllale waa Yaman lañ dégg nga mu naan na saad abi aba hurayrata radiyallahu ta'ala anhu nabi mu jël ci yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ne iza anfaqat su euh, dépensé almar'atu jigéen ji min kasbi ci euh, fag sa sa fagbutéef zawjiha boroom këram an ghayri amrihi ci lu dul ndigalam fa lahu ñeel na ko nisfu ajrihi genn wàllu payam maanaam daf ni dafa am yelloon maanaam am na genn wàllu payam li mooy am na moom daa am pay comme ci hadith bi wessu euh ah, jëkkër di am pay bu boba muy ñaari pay waye comme que ñaari pay yoy suñu leen boolee kenn ku ci nek genn wal ngay am manam loolu mo moo tax ñu tuddee ko genn wal pay waye ku nek pay bu ma sëkk ngay am ci dépense waye li yëpp dañ ko teunk ci baña yaq yàq nga xamantene mom la ko tudde won waye ah, manam mom la ah, waxon ci ginnaw hadith bi imam al-Bukhari rahimahullahu taala dina indi wat hadith numero 5195 ak 5360 imam Muslim indi na ko xadis numéro 1026 imam Abu Dawud indi na ko xadis numéro 1607 imam Ahmad indi na ko xadis numéro 8188 kon ñu gis ne xadis bi waa ashaabu kutubu sitta ñoom itam ñett ko ci indi muy imam al-Bukhari imam Muslim ak imam Abu Dawud amma imam at-Tirmidhi imam an-Nasa'i imam Ibn Maaja ñoom ñëpp solo wuñ ko rahimallahu jami'a mu ne imam al-Bukhari daal ne baabu man ahabba al-basta fi rizqi baabu buntu man ki nga xam ne ahabba sopp na al-basta ak yaatu fi rizqi ci wërsëg maanaam képp koo xamante ne da ngaa bëgg borom subhaanahu wa ta'ala maanaam daal di yaatal sa wërsëg rek mu daal di noppi nan ngay def hadith bi dina ko tontu insha allahu ta'ala mu ne qaala bil isnaadil muttasil fi awwalil kitaabi ilayhi haddasanaa Muhammad ibn Abi Ya'quub al-Kirmaani rahimahullahu ta'aala muy Muhammad ibn Ishaaq ibn Mansuur Abu Abdullah ah, ibn Ya'quub al-Kirmaani maanaam ah, du ñenn ñi dañu comme ku mel ne Imaam Nawawi rahimahullah dañuy wax Kirmaani tamit di wax Kirmaani waaye. Euh, imam al yi am na ku sara hadis Sahih al-Bukhari imam al-Kirmani moom nee na ñun suñu waa dëkk ñëpp Kirmani la ñuy wax te man foofu laa cosaanoo te ñun ñëpp Kirmani la ñuy wax amul ku ci wax Karmani maanaam loolu di dëgëral li nga xam te ne ne <laughs> moom moom la wax al-Hafiz Ibn Hajar nag rahimahullah daf ni amaan na cosaan bi dañ daan wax Karmani mais boo gisee imam an-Nawawi ne dinañ wax yi tamit mooy ne xëy na cosaan bi début bi dañu doon wax Karmani waaye ginnaaw gi ñuy wax Euh, maanaam mu siiw ñuy wax Kirmaani loolu rek mujj siiw waaye loolu maanaam euh, dëkk bu nekk ko mm-hmm. ka dëkk moom moo gën a xam la ñuy wax maanaam imam al-Kirmaani daal la wax moom nee na ñun Kirmaani la ñuy wax kon xëy na ñu jàppe ko noonu amaan na moom mooy li wér insha allahu taala muy Abu Abdullah al-Kirmaani al-Basri rahimahullahu taala maanaam nekk demoon dëkki Basra tamit Euh, rahimahullah bokk ci fukkeelu tabaqa bi génn àdduna deux cent quarante quatrième année euh, ginnaaw euh, gaddaay yenente bi alayhi salaatu wassalaam mu bokk ci siqaat yi comme ni ko al eh, imam ibnu Hibbaan ak imam Yahya ibnu Ma'in waxee rahimahullahu ta'ala rahmatullah al jami naka noonu al hafiz ibnu Hajar ak ñeneen ak ñeneen rahimahullahu al jami ñoom ñëpp saxal nañ ne moom ku siqana moom nag dafa bokk ci ñu ñuy tuddee afraadul Buxaari yi maanaam imam al Buxaari rek moo solo ay xadiisam maanaam comme gis nañ ko léegi Yaxya euh, Yaxya ibn Jaafar gis nañ léegi Muhammad euh, euh, gis nañ Muhammad ibn Salaam ak Bikandi ak ñeneen ñu mel ne ñoo ah, xamante ne ñoom moom mii imam al Buxaari rek moom moo solo ay xadiisam te ñett xadis la solo ci moom fii moom mooy fi mu ko njëkkee tudd incha allah taala dinañ ko indiwaat te yëpp nag ñetti xadis yëpp ci abul ci Hasan ibn Ibrahim bii la ko jëlee. kii mu kii muy jëlee ci moom ah ñetti xadis yëpp yi imaam Buxaari soloo ci moom ci moom mii lañ ko jëlee rahimahullahu taala moom mu ne qaala haddathana Hassaan ibn Ibrahim biñ tudd léegi Hassaan ibn Ibrahim ibn Abdullah al-Kirmaani moom tamit Abu Kirmaani la Abu Hishaam al-Anazi de nekk tamit waa Kuufa mais mu dem dëkk nekk qaadi waa Kirmaan rahimahullahu taala bok ci juroom ñettelu euh tabaka bi euh eh, eh, rahimahullahu taala gane àdduna 86e ane genn àdduna 186e ane ginnaw ginnaaw gàddaay yaronte bi sallallahu alayhi wasallam sallam moom dund na eh, téeméeri at maanaam ci siqaat yi la euh Ali ibn al-Madini nak mom neena ga kana kaana siqa manam ku wóor la woon waaye mu ne waaye wa an-nas fi qadar ci ni gën tar ci nit ñi la won ci qadar manam ci di wax ci walu qadar voilà kon euh, nekkoon tamit euh, maanaam mooy kuy wax ku maanaam ku am xad ku nekk xadar yi nii maanaam dafa daan metti ci sa kaw voilà da daan metti ci sa kaw voilà kon euh, moom kon lu imam Ahmad ibn Hanbal wax ne xadiisu bu xadiisu ahli moom xadiisa waxta waxam mooy waxu ñi nga xam ne dañoo dëgg gaa yi dëgg yi moom ñooñu lay wax seen voilà waaye euh, ñi nga xam ne moom mooy waaye nag ñu bëri dañ dañ ko jàppee saduq ndax la yoon biy juum rahimahullahu taala comme al-Hafiz Ibn Hajar euh, day day waaw mais nag day biy juum voilà imaam Ibn Hibbaan tam loolu wax sax saduqun mais rubbama waaw yuxti léeg-léeg day di faral di juum euh, rahimahullahu taala waaye euh, lii nga xamante ne moo tax imam euh, euh, imam al-Bukhari rahimahullah moo tax mu tànn koo xamante ne daa taqoog moom ak saxoog moom ci anam koo xamante ne moom xam na ni kii lii bi juumu ci muy solo xadisam ci ci moom dégg nga rahimahullahu donte ñeneen ñi wax nañ ne siqa la hmm? waaw dégg moom kon Hassan ibn Ibrahim bi rahimahullahu taala imam al-Bukhari moo solo ci moom Muslim ak imam Abu Dawud manam te lolu moy ne ñom ñi bu ñu lay bu ñuy sukkandiku ci say wax moy ne ci sa parti nga manam lañ la mëna bolé wala bokku li gëna néew lañ la mëna wax moy sa dox euh mom mi mu ne kon euh qaala mo kon di gis ne hadith bi wa sahabu kutubi ci yëpp solo wuñ ko maanaam imaam Buxaari imaam Muslim imaam Abu Daawud ñoom ñoo solo ay xadisa rahimahullah amma taalibeen bi Muhammad ibn Abi Yaqub al-Kirmani mom imam al bukhari rek mo solo ay hadith rahimahullah mu ne qaala ah, haddasanaa ah, Yunus mooy Yunus ibn Yazid ibn Abi Najjar al-Ayli rahimahullahu taala nekk waa Misra ah, muy Abu Yazid al-Qurashi al-Umawi rahimahullah bokk ci juróom-ñaareelu tabaqa bi génn àdduna 159 ane ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ci eh, Misra rahimahullahu taala hadiisam nekk ci kutubu sitta mu ne qaala haddasanaa Muhammad muy Muhammad ibn Muslim eh, ibn Ubaydullah ابن عبد الله ابن شهاب الزهري مانام نيار ابن شهاب لا دان واخ ولا ني الزهري واي في داف كو واخ تودي تورم محمد مانام لول تامت متنا موتاخ يوي دا فا متا خامني رحم الله تعالى كوم ني كو موي موي موم ني بوك ني نتم طبقه رحم الله تعالى نيك امام امامي ca Madinatu Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wa salaam gën a àdduna cinquantième année génn àdduna cent vingt-cinquième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ay hadiis nekk ci kutubu sitta an Anas ibn Maalik radiyallahu ta'ala anhu sahaaba Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala moom mu ne sami'tu dégg naa Rasulullah ndawal Yàlla li sallallahu alayhi wa sallam yaqulu muy wax naan man sarrahu képp koo xamante ne dégloo na ko an yubsata ci ñu yaatalal lahu ñeel ko fii rizqihi ci wërsëgam aw wala boog incha allah ñu daal di yéexeel loo ñeel ko fii asar yi ci jeexitala mooy ci ci euh, ci génn àdduna mooy day bi muy génn àdduna mu naa mun a fal yasin na jokk rahimahullah mooy mbokkam maanaam kon ku bëgg yàlla wërsëgal ko na ko noonu mu indil ko euh, mu guddal fanam na jokk na jokk mbokkam maanaam loolu nag ci barke bi lay amee maanaam ci barke wërsëg bi lay amee bu tekki ne maanaam da ngay la nga waroon a dund day gën a gudd day gën a gudd. waaye wërsëg wi la borom subhaanahu wa ta'aala defal ak barke bi muy def ci sa dund day gën a yaatu waaye nag moo tax jokk mbokk nekk loo ama am solo la borom subhaanahu wa ta'aala ci wax lu bari ci alxuraan bi lañ ko gis insha Allah ta'aala ci kanam waaye loolu malgré loolu yëpp borom subhaanahu wa ta'aala wutalu ko dëkkal maanaam wutalu ko wutalu ko euh, limite maanaam néewul nii lañ koy defee loolu ci aada rek lañ koy wax al aadatu muhakkama maanaam loolu daa bokk ci nga mooy su fekkente ne moo tax mën na jokk mën naa amee ci li gën a rëy comme ci li gën a maanaam mën naa amee ci woote téléphone mën naa amee ci at bu jot euh, nga jël nouvelle yi mën naa amee nag tamit ci di jël sa alal di mën naa amee ci euh, euh, maanaam di di leen jàmmal maanaam bañ leen indi li problème maanaam mën na amee ci lu bari bari ci façon yu bari mais daal na am voilà ak lu mën a amee na am dégg kon lolu mom lay mom la imam al-Bukhari mo tax mu indi xadis bi comme niñ ko gisee rahimahullahu taala hadith bi imam bukhari in na ko xadis dina ko indiwaat inchaa taala hadith numéro 5986 ci kitab al adab voilà insha allah taala fofu dinañ fa gëna dinañ ko gëna yaatal insha allah taala imam Muslim indi hadith numéro 2557 ñaar cinq mo cinquante daawu den imam hadith numéro 1693